auzu billahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi ñu sant yàlla julli ci yonantam ba sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faay mën a nekk ñoo leen di ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen rawatina yéen njàmbone fii ci Daaru Salaam Sibaaw ñoo leen ziar baax tey nag dañoo ñëw yéen ci wàllu kiis kii daa di jàng te xel ma naqari walla moom sax muy mag mu bëgg xelam neex kiis nag am na lu am la kiis dis na ko defal xale pour xel ma neex kiis dis na ko defal mag pour xel ma neex rawatina xale yi nga xam ñu ngi jàng nag képp ku am doom ji jàng nga bëgg xel ma neex bindal ko lii aaya bi aaya bi nag ma nga nekk ci surtu Ali Imran boo ne baqara mooy ñetteel ba saar rek fatiha baqara ali imran aaya bi ne moo ngi ci xoolee a suurat ali imran annahu laa ilaha illa wal malaikatuhu wa ulul ilmi qaimatun bil qisti laa ilaha illa huwa azizul hakim loolu mooy aay bi aay bi ne danga koy bind juróom-ñeenti yoon mooy neuf fois nga ko bindi lim nag dafa am solo bu leen koy ëppal bu leen koy yéesal lim ndax neuf mooy tollook bën-bën yi nekk ci moo tax xaatimatul musallas garaaw neuf mooy jàpp bën-bën yi tolloog doomu aadama léegi da nga koy bind juróom ñeent yoon boo ko bindee juróom-ñeenti yoon nag da nga koy def saafara danga koy def saafara bu ko defee moom mi nga xam ne xelam a naqari moom moo ciy naan waaye dañ koy def lem nag boo ci defee lem ca lay gën boo ko mënee waaye da cee naan ñetti ajjuma yu tegtaloo wala juróom-ñaari ajjuma yu tegtaloo yu toftaloo laay bëgg a wax toftaloo teglantoo noonu lañ koy jëlee. bala moo lekk dara tamit la koy jël kiis moom bala moo lekk dara rek wala bala moo xëy bu xëyee suba teel ki koy jël loolu la koy jël bala moo lekk dara dara la koy jël mën na koy jël tamit suba ak ba bala moo lekk dara suba ak àllarba bala moo lekk dara waaye te bu koy jël na ko teg na ko def mu taftaloo juróom-ñaari àllarba àllarba bu nekk saa boo xëyee rek mu njëkk caa naan bala moo lekk dara mën na ko def tamit juróom-ñaari àjjuma yu taftaloo waaye bu xëyee bala moo lekk daal rek mun naan ci kon loolu kiis la ku am solo sax mag ñi nag ñëpp ko dëggal kiis gi dañ ko daal jëfandikoo lu bari wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu